asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu bokk jullit yi dellu siwaat nañu ci jataay bi nu baaxoo ànd ak mu jëm ci naafilay weeru koor nu di ko jëlee ci téere sëriñ bu Mbàkke bi mu tudde qurratil ayn fi tamyizi ba'di faraa'idil ayn mu di téere bu am solo te bari njariñ lool nu toll tey ci guddik ñaar fukkeel ak juróom-ñeent sëriñ Chouaïbou Mbacké radiyallahu dafa wax ne guddik ak juróom ku ca julli la mu julli woon ca jëkk guddik ñaar ga ak juróom ku ca julli la mu julli ca guddi ko jëkk mu mel ni kon guddi ga ko jëkk mooy guddik démb gi te démb daf caa waxoon ne ñeentu rakka fatiha benn yoon wattiini ak qul yaa ayyuhal ak lixlaas lu ci ne juróom yoon moom la ci waxoon ci guddi démb gi kon loolu lañu defaat ci guddik tey gi guddik ñaar fukkeel ak juróom ñeent ku ca julli la mu julli woon ca guddi ka ko jëkk moom it des na ko jéggal bakkaaram yu jëkk ak yu mujj wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu